il œuvre dans le social il aime fair plaisir moi personnellement woo naa ko fi ne ko dama bëgg nga def benn budget pour pouponnière bu nekk Médina ak bu nekk Mbour il m'a dit de manière claire pas de souci c'est quand tu veux tey bu ko benn woykat woowee ne dama la tuddee sama soirée mu ne ko entrée bi ñaata la mu ne ko cinq mille mu ne ko ñaata ak personnes ñooy dugg mu ne ko deux cent cinquante personnes sans même le connaître sans ñu ay rapport d'amitié vu qu'il oeuvre dans le social da koy jàppale da koy na ok mais cela veut pas dire que moo xam na ko sax parce que lui au fait il fait pas trop attention à ça donc jarul ay c'est pas bon tout ça wax bu bëri bi jaru ko parce que tey bu nekkoon keneen it am beneen programme bu bokkul ak woy wax moo soxlam dina ko ko fajal c'est juste ça. mais li ma dégg nag dégg naa suñu frère moo géet moo ñëw jënd ticket yëpp parce que gis na keroog peut-être ni fan si sonne ñëw sañsee soirée bi yeggul kon kon moo daal li mu def daal moom yéeme na daal moo bàññi si yaram dafa tàng moom moom woo ne ma ko ah, mu ne ma keroog naa ni sénégalais yi ñëwee en masse ñëw sañ sa te soirée bi il faut mu yegg eh, wax na dëgg soirée bi il mu yegg dina yegg te du metti moo gét kenn eh, gàcce bi. ah mais boo ñëwee yëngal dëkk bi quoi. non ah. non foog nga yëngal. boo yëngal dëkk non foog nga yëngal. waaw ah, caa amul problème. waaw naa leen wan fecc bi naka la. ay. ah. mais moo. dañuy biis. Oh, dañuy biis. dañuy biis de. Ah, waaye neen nañu biis waaw. non kon nañ dem. <laughs> ay.